mbokk ñuy teewlu ci leeral TV ak leeral point net jàmm seen débriefing de la semaine maanaam lépp li nga xamante ne rek dafay actualité di fait marquant ci biir semaine bi ñu fas yéene la ko dégtal ci biir leeral TV ak leeral point nekk samedi novembre atum 2020 koy defee à chaque fois dañ koy dooree ak pandémie bu Covid 19 ci test yi nga xamante def nañ ko mu tukkee suñuy laboratoire ñu xam ne ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ñoo ci ñëw am doomu ay cas communautaire fukk ak ñett ñoo ci weer ba dellu ci seen mbokk ñaari cas grave la ñu am yoo xamante ni ñoo ngi en réanimation ñi xam ne nag benn doomu aadama ñàkk ci bakkanam ci bésu tey bi nag bi mbas mi duggee ci Sénégal di ñaari fan ci weeru mars ba léegi Sénégal am na ci lu toll ci fukki junni ak juróom téeméer ak juróom benn fukk ak juróomi yoo xamante ne néemeeku nañ ko fa ci ñoom nag fukki junni ak juróom ak ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróomi cas ñoo ci daal dee rek wér ñi xamante ne ñàkk nañ ci seen bakkan tamit lim bi toll ci ñetti téeméer ak fanweer ak ñi nga xamante ne aussi ñoo ngi wéy seen faj tëdd si lali hôpitaux yi lim ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent mu nekkoon tey li nga xamante ne moom mooy situation du jour actualité de la semaine ci biir semaine bi nag fële ca am na fa daal ci nga xamante ne ñoom ñooy nappkat yi ba tax na sax ñu jëleen loon yóbbu leen ci hôpitaux yi di leen fa faj yi xam ne sax am na ñenn ñoo xamante ne nag wër nañ ci boobee feebar ba dellu ci seeni mbokk jamono ji nag lu ëpp ci ñetti téeméeri doomi aadama ñoo amee doomu jàngoro bi fii ci Sénégal yooyu chiffre nag ay bés yu ñu xëyee muy gën di yokk di xam ne nag fële ca am nañ lu toll ci ñaari téeméer ak juróom ak ñaari téeméer ak juróom benn fukki doomi aadama yoo xamante ne am nañ boobay feebar bu ñu sukkandiko nag ci docteur Malick Ndiaye mu ngi xam ne nag fële nga xamante ne moom mooy ca Ndayane ñaari téeméer ñaari doomi aadama ñoo ci amee feebar bi ca Mbour ak juróom-ñeent ñoo amee fi nga xamante ne moom mooy Joal ñaar ak juróom-ñeenti doomi aadama am nañ ko fa euh, fële nga xamante ne tam moom mooy ca district bu Tiwaawan ay doomu Fass Boy am fa li nga xamante ne moom mooy feebar bi seen lim nag daal di toll ci fukk hôtel teeru bi la ñuy dem ki nga xamante ni nag moom mooy directeur ba mu fa daal di dàq ay doomi aadama yoo xamante ne dañ fa doon daan seen doole seen lim toll ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn doomi aadama yoo xamante ne dañ doon liggéey ca boobee bërëb gannaaw ba mu leen dàqee nag moom directeur ba li mu xam ne nag jamono ji mooy boobee feebar nag feebar bi nga xamante ne nag moom mooy covid 19 daf leen laal bu baax a baax loolee tax sax mu wàññi ñenn ci ñi nga xamante ne ñoo ngi doon daan seen doole ca boobee kër ci alxames bi nag ñu doon installé ki nga xamante ne moom mooy Idrissa Seck nekk euh, fële nga xamante ne moom mooy ca bopp conseil économique social et environnemental mu daal di fay wuuti ki nga xamante ne moom mooy Aminata Touré Idrissa Seck gannaaw ba mu yëkkati ay kàddu gërëm na ki nga xamante ne nag moom mooy njiitu réew mi gërëm tamit ñi nga xamante ne ñoo ko wuutu ci kër ñu toll nag ci fukk ak benn doomi aadama yoo xamante ne jaar nañ ca bopp kër googu yi nga xamante ne moom mooy conseil économique social et environnemental jamono ji nag moom sa Seck lenn dong la bëgg booloo liggéey ànd ak ki nga xamante ne nag moom mooy njiitu réew mi di président Macky Sall jam ñaajoo ki nga xamante ne nag moom mooy njiitu réew bu Sénégal ci alxames bi demoon na fa amal pose première pierre euh, projet bi nga xamante nag moom mooy Dakar First boobee projet nag ñu mën ko xayma ci ñaari téeméer ak juróom-ñaari milliards yoo xamante ne nag nguuru Sénégal da ko daal di génn teg ci taabal yi ngir amar boobee projet nga xamante ne nag fas kene naa jur lu toll ci junni xëy boo xamante ne nag ñi di ndaw ñi dinañ leen a mën a téye ci réew daal di fay liggéey tàggat seen bopp ci ay formation ne njiitu réew mi daal dina koy mooy sa diwaanu jam Diamniadio université Alioune Diop nekkee fële ca diwaanu Bambey ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy étudiants yi ci biir semaine bi ñu génnoon doon jàmmaarlo ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy takk der yi ci boobee jàmmaarlo nag ñu xam ne nag lu toll ci fanweer ak juróom-ñetti doomi aadama daal dinañ fay jëlee ay gaañu gaañu bokk na nag si ñetti policier ak fanweer ak juróom ci ay étudiants yoo xamante ne am nañ ay gaañu gaañu ci yooyu jàmmaarlo ñu xam ne nag yooyu étudiant lenn dong lañ doon naqarlu ngir ñu yeggali nag liggéey ya nga xamante ne sumb nañ ko foofu bokk na nag ci benn benn restaurant boo xamante ne fas yéene naa def lu toll ci juróom lu toll ci juróomi téeméeri place yoo xamante ne ñoom ñeeñee di étudiants yi ñoo ko fas yéene nag jariñoo tabaxaat nag beneen pavillon boo xamante ne nag dafa fas yéene yokk yooyee bërëb foofee nga xamante ne moom mooy ca université Alioune Diop nekkee fële ca diwaanu Bambey ñu xam le nag ci lu ñuy xeex ba tey bokk na nag ci li nga xamante ne moom mooy ouverture master bi nga xamante ne moo nekkee foofee ca université bu Bambey moom mooy Barthélémy Diaz gannaaw mu faatee ki nga xamante ne moom mooy Ndiaga Diouf l'OFP e nag amoon atum 2011 ki nga xamante ne nag moom mooy Barthélémy Diaz ñu tëjoon ko loxo jëm ci moom mbir gannaaw ba mu faatee ki nga xamante ne moom mooy Ndiaga Diouf boobee procès nag war nañ ko bu juróom benn ci weeru janvier atum 2021 mbir mi nag mu ngi amoon gannaaw ba ay nervi daal di ñëw ci boobee bërëb nekk maire bu nekk nag maire bu Mermoz Sacré-Cœur daal di koy rek attaqué yam ci ki nga xamante ne moom mooy maire ba di Barthélémy Diaz daal di koy song noonee la def daal di génn ab fetal seen kaw faatoon ki nga xamante ni nag moom mooy njaga Diouf ci moom coon nag ñu tëjoon ci ki nga xamante ne moom mooy Barthélémy Dias ñaari at yoo xamante ne juróom benn weer yi dong la jotoon a tëdd ca Touba la ñuy dem li nga xamante ni nag moom mooy marché Ocass daal di fay lakkaat ci lakk boobu nag métti lool daal di laal commerçant yu bëri ba tax na sax yooyee dégâts ñu mën ko xayma ci lu ëpp ci benn milliard ci suñuy koppa loolee tax sax ba ki nga xamante ne moom mooy préfet bu Mbacké maire Abdou Lahad Ka ak ki nga xamante ne nag moom mooy gouverneur bu Diourbel daal di ñëwoon ci boobee bërëb ngir saytu li nga xamante ne moom mooy dégâts yi boobee lakk daal di sooki ci boobee lakk ba tey ki nga xamante ne nag moom mooy leader bu Pastef du ab délégation ci boobee bërëm nag ngir ñu mën a wu ñi nga xamante ni ñoom ñooy commerçant yi émigration clandestine Barça wala Barsaq ndaw yi nag di wéy di jël li nga xamante ne moom mooy gaal yi ci biir semaine bi ay navir chinois jagoon nañ loxo nag lu toll ci juróom-ñetti koor yoo xamante ne ay ndaw yu doon jël gaal yi di dem réewu tugal daal di ñàkk seen bakkan ci li nga xamante ne nag moom mooy géej yi ca beneen wàll ba nag ndaw yi nga xamante ne jotoon nañoo jël gaal yi jaar ci li nga xamante ne moom mooy désert bi ak fële ca réewum Algérie daal dinañ leen nag dellu siwaat ci seen ay réew bokk na nag ñaar fukk ak ñeent yoo xamante ne ay doomu Sénégal lañ nga xamante ne moom mooy ci réew mi euh, talaata ba lee ñu génn kuréel gi nga xamante ne nag moom moo ëmb lépp lu jëm ci wàllu émigration ci àdduna bi moo daal di xamle li ni mel di xamle ñoom ñooñee ñëpp ñu tolloon ci juróom-ñeent fukki ak ñaar bokk na ci fukk ñaar fukk ak ñeent nekk ay doomu Sénégal juróom yi nekk ay doomu Gambie euh, juróom-ñett fukki ak ñett nekk ay doomu Guinée ci wàllu émigration la ñuy desandi ba tey ak jéyee ji nga xamante ne nag amoon na fële nga xamante ne moom mooy ca diwaanu Cap-Vert ñuy wax nag benn garal benn gaal boo xamante ne defoon na lu toll ci téeméer ak juróom fukki doomi aadama yoo xamante nag dafa suux gannaaw ba mu suuxee ñu bari daal di ciy réer ñàkk seen bakken ci joowee jéyee nag ñuy xamle juróom benn fukk ak juróom benn ni doomi dama ñoo ci daal di mucc gannaaw ba ñu jógee fi nga xamante ne moom mooy ma dëgmaloon réew ma nga xamante ne nag moom mooy Espagne Union des routiers du Sénégal ak ñi nga xamante ne moom mooy l'intersyndicat du secteur des transports kuréel yooyu nag ëmb wàllu dem ak dikki bi fii ci Sénégal fukki fan ak juróom ci weeru novembre bi ñu nekk atum 2020 ngir amal nag ab grève boo xamante ne ba léegi nag waxaguñu lan moo nar a sooke boobu mbir waaye nag jàpp nañu ab bés boo xamante ne dañu faskee yéene janoo ñi nga xamante ne ñoom ñooy taskatu xabaar yi ngir yëgal lan moo nar a sooke boobu grève ñu daal di koy jàpp di xam le nag altine bii la ñu fas yéene janoo ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy taskatu xabaar yi fukki fan ak juróom ñaar ci weeru novembre atum 2019 fukki fan ak juróom atum 2020 at gannaaw ba ñu fàttaliku nag génn kàddu na ki nga xamante ni moom mooy Pape Dia nekkoon mag ci B52 bu Mbour di ki nga xamante ni nag moom mooy Bombardier waaye tamit nekkoon manager am ba mu génne àdduna nag at la toll ñu koy fàttaliku nag ci biir semaine bi moom Papa ja nag mu jàppale bu baax a baax ki nga xamante ni moom mooy rakkam ja di B52 bu Mbour moom Papa Dia ñu koy ñaanal yàlla ba tey mu yërëm ko xare ko àjjana nag woyofal li nga xamante ni nag moom mooy suuf ci kawam mbokki jërë ngeen jëf mu nekkoon li nga xamante ne moom mooy seen débriefing de la semaine maanaam lépp li nga xamante ne rek dafay actualité di fait marquant ci biir semaine bi ñu leen ko doon dégtal ci biir Leral TV ak Leral point net di leen jaajëfal bu baax a baax di leen wax ngeen wéy di suivre programme yu Leral